دونك لي استوار لبو خمانتني عبره لا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد لي تخ نيو جانغال استوار بي نك دنجو خم سي فين دونك نيغي انفيتي نيب ني ديم با فين بي بور كومبراندر لان موي بيو استوار بي لان لا نتي ورا تيري لسون سي فيديو بي ني اهلا يان نيب الحمد لله يان نيب باينين الحمد لله رب العالمين يان سنت يالا خمنا يالا سبنا لين نسنت يالا آه، الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والجاه إلهي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر قنا العذاب وجد كن دافعا أبدا شر النفوس كذا شر الذي حسده ونجي يا ربنا لنا الهوى والطغى في ذلك المحضر ولتعطنا الرشد أدعوك بالشعر ذي مستفعل فعل فضلا وتوفيق قول وبسط المدد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلتني يعني نسيب ارتشان لانا الفيض نيو إلين دنيو دنيو واتقين تبين استوار بو حمانتني استوار بو أمسول الله القرآن واحنا دينات الاستوار بفين بمونه inna fi dalika la ibratan liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid mu ne histoire yi xam leen ne lu jàngale la ñeel ki nga xamante ne dafa am xel alqalbu fii nii xel lay firi maanaam képp koo xamante ne am nga xel am na yenn histoire yoo xam ne buñ la ko jàngalee war nga cee jëlee jàngat yu bëri pour sa dund histoire bii nii yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali xadis bi ñëw na ci buxaari ñëw na ci muslim yenent bi mu ne ci jamonoy bani israil xadis bi abu hurayra moo ko solo dinañ duggal texte xadis bi ñeel ñi nga xam ne dañ koy soxla ci arab waaye dañuy ñëw rek firi ko rapidement yenent bi sallallahu alayhi wa mu ni ci jamonoy bani israël dafa am ñetti nit ñoo xamante ni yàlla dafa naayoo woon joxe ci ñoom leçon waaye dafa naayoo woon nattu leen ñoom ñett mu def kenn ki mu nekk koo xamante dafa mel ku gaana wala ndoxum siti keneen ki gumba la keneen ki dafa am leen ci bopp bi yenent bi sallallahu alayhi wa mu ne yàlla ba mu paree pour examiner leen ñoom ñett dafa yónni benn malaaka malaaka bi ñëw ci ki nga xamante ni dafa am leel ci diggu bopp bi ne ko lan mooy li nga gën a bëgg mu ne ko man de su ma sañoon li may am mooy karaw bu normal ndax nit ñi ñu may reetaan ñu ngi may daw ndax sama leel boobu malaaka bi laal bopp bi karaw gi saxaat ñi mu waree mu ne ko ban ci richesse yi ban ci alal yi moo la gënal kooku ne ko man gëléem moo ma gënal wala fekk nag la wax noonu la ko xadis bi indee suwaat gëléem la wax wala nag ndax diggante kooku ak ki nga xamante ni moom mooy gaana bi dafa am ci ñoom ku choisir gëléem am ku choisir nag mais kiy nettali xadis bi dafa fàtte kan la ci ci ñoom ñaar moo tax imma kenn ki nag la keneen ki gëléem ba mu waxee loolu malaaka bi may ko benn gëléem ne ko yàlla la la yàlla barkelal sa géléem mu dem mu demaat ci ki nga xamante ni dafa gaana mu ñëw ci moom ne ko lan mooy li la gën a loo gën a bëgg mu ne man de li ma bëgg mooy yàlla delloo sama deret mu mel ni ma meloon waaye tamit samay cër yépp jubaat ma mën a jàkkaarloo nit ñi ndax nit ñi ñu may daw malaaka bi raay yaram bi yaram bi delluwaat jekk lool rafet lool mu ne ko ban ci alal yi ban ci xeetu richesse yi moo la gënal mu ne ko man nag laa malaaka bi jox ko nag ne ko yàlla la ko yàlla barkeelal ginnaaw gi malaaka bi jóge foofu noonu dem ci ki nga xam ne dafa gumba ba mu yegsee mu ne gumba bi yow lan mooy loo xam ne moo la gënal jamono bi mu ne li ma bëgg rek mooy yàlla delloo ma samay bët pour may mën a gis nit ñi malaaka bi laal kanam gi bët yi ñëwaat lii yeneen bi sallallahu alayhi mooy nettali mu ne ko ban ci alal yi moo la gënal kooku ne ko man gàtt rek laa bëgg malaaka bi jël may ko ko ne ko yàlla la ko yàlla barkeelal mu dem ba diir yeneen bi ne ku nekk ci ñoom am gétt kii am géttu nag kii am géttu béy kii am géttu géléem te gétt géttu tuutiwul maanaam ay coggali nag coggali géléem ak coggali béy yàlla pare pour xool ndax ñii nii dinañ motal kóllëre sama diggante ñoom mu yónniwaat malaaka bi malaaka bi dem ci ñoom waaye suy dem day yor melo bi nga yoroon yow avant maanaam buy ñëw ci leel ku ku leel ki day ñëw ci moom fekk moo ngi leel bu ñëwee ne ko ah man de dama nekk ci yoon miskin la damaa soxla nga dimbali ma ci benn gëléem rek ma mën kaa euh, dimbali ko ci yoon bi kooku ne ko ah ñun de soxla yi dañoo bëri euh, instant bii nii mënuñoo génne benn gëléem te moo ngi yor gétt mu ne ko yow dafa mel ni xàmmee naa la de yow nekkoo woon nit koo xamante ne dangaa leeloon après yàlla may la karaw nga poofu pauvroon aussi yàlla may la richesse mu ne ko man mu ne ko alal ji dama kaa doon ne ci samay maam samay maam doon nekk seen maam malaaka bi ne ko ah bu fekkee ne li nga wax du dëgg la du dëgg kon yàlla na la yàlla delloo ci xaal bi nga meloon bu fekkee ne li nga wax du dëgg yàlla na la yàlla delloo ci xaal bi nga nekkoon mu jóge foofu noonu dem ba mu demee mu dem ci ki nga xamante ni moom moo amoon problème ci der bi soit ndoxum siti walla gaana mu ñëw mu ne ko man de miskin laa dama nekk ci yoonu tukki te yoruma dara benn nag rek laa bëgg boo ma dimbalee pour ma mën a dimbali ko ci yoon bi kooku noonu waxaat ko exactement li ko borom leel bi waxoon amul dara lu ci changé mu ne waat ko bu fekkee ne yow li nga wax nii du dëgg yàlla na la yàlla delloo ci xaal bi nga meloon malaaka bi wëy ñëwaat ci gumba bi fekk moom moo ngi ànd ak tamit gumba ku nekk ci ñoom buy ñëw ci yow melo bi nga nekkoon avant moom lay ñëwee ci yow ba muy ñëw ci gumba bi moom itam moo ngi gumba ànd ak yor xaalu miskin ne ko ah man de faqir la miskin la aussi damaa gumba damaa nekk ci yoon di tukki dama bëggoon nga dimbali ma ci ngir yàlla rek ci benn ci béy yi nga yor gumba bi yàlla defal ko tawfiq mooy ki gumba woon yàlla defal ko tawfiq mu ne jëlal ci gétt yi lu la neex mu ne man gumba laa woon yàlla xippil ma samay bët miskin laa woon yàlla may ma richesse bii nii malaaka bi ne ko téyel sa alal xamal ne yàlla moo leen doon examiner rek kontaan na ci yow te mere na sa ñaari mbokk yële mooy borom leel bi ak boroom yaram bi yàqu woon ñoom ñëpp yàlla delloo leen ci xaal bi ñu nekkoon buñ ñëwee ba fii nii li ñuy bëgg a jàngale mooy nit ki ak koo mënti doon dangaa nekkoon ku ñàkk yàlla may la del fàttaliku ñi ñàkkoon dangaa nekkoon ku réer yàlla xamal la del xamal ñi xamutoon dangaa nekkoon ku lott yàlla mënal la del dimbali ñi lott alquran mu ngi wax yonente bi sallallahu alayhi mu ne ko alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka aailan fa agna nañu taxaw ci ñetti aaya yi yàlla na ko xanaa du man maa la fekkoon nga nekk jirim ma wettali la dëgëral la wa wajadaka dallan ma fekk la nga réer fa hadaa ma jubalal la mu ne wa wajadaka aahilan fa aghnaa ma fekk la nga doon ku ku ku ku ku ñàkk ma enrichir la xam ngeen ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam musta réer te musta am am alal ba ñuy wax ne daa ñàkkoon après mu am alal mais yàlla ñun lay waxal kon jullit bi war na fexe saa yu jugee ko ci xaal jëm ci beneen xaal nay fàttaliku toujours xaal bi mu nekkoon naka noonu tamit di fàttaliku ñi nekkoon ci xaal boobu noonu da gis nit koo xamante ni amutoon dara bu amee rek commencé di incarné yoo xamante ni day mel ni day fàtte fi mu nekkoon démb te yeneen bi sallallahu alayhi jàngal nañu ci xadis bii ne képp ku melowoo melo boobu noonu ñaari mbir moo mun a am imma yàlla dana la delloo ci xaal bi nga nekkoon wala dana doon ku la mere parce que xadis bi Abu Hurayra ci fin bi dafa ne dafa wax waa ji ne ko yàlla kontaan na ci yow te mere na sa ñaari mbokk yi waaye ñu bëri ci borom xam-xam dañoo ne yàlla da leen delloo ci xaal bi ñu nekkoon ndax ñaanu malaayika bi mooy li mu ne fa sayyaraka allahu ila ma kunta alayhi yàlla la yàlla delloo ci li nga nekkoon te ñaanu malaaka dañ koy nangu kon ñaari mbir yi na ko nit moytu mooy ragal balaa yàlla di la delloo ci xaal bi nga nekkoon démb te ñëpp xam nañ ne am alal ba pare delluwaat ci ci ñàkk lu metti la am xam-xam wat ci réer lu metti la am kàttan wat ci lottu lu metti la waaye li gën a metti yëpp mooy fekk yàlla da cee ànd ak mere la moo xam def na lii ci àdduna wala def ko yëpp waaye mereb yàlla ñëpp xam nañ lu muy jur yàlla nañ ci yàlla musal donc lii histoire la boo xamante ni ibra la li man kaana lahu qalbun aw alqa samaa wa huwa shahid yàlla ñu yàlla may daiman ñuy xam ne ay doomu aadama lañ kenn ci ñun motul kenn ci ñun mënul kenn ci ñun amul kenn ci ñun xamul yàlla mi am te mën te xam moo ñuy xamal moo ñuy mënal moo ñuy amal donc nañuy fàttaliku ñi nga xamante ni ñoo ñu féete suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bu ngeen yërëmee ñi leen féete suuf ki leen féete kaw yërëm yërëm leen yàlla nañu yàlla yërëm defal ñu fatxu defal ñu tawfiq bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته